bokki jullit yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal tomb bi bi ñuy fàttalante dañ ci jëkk a jàng ne lislaam ya ko doon jiitu tudd ay diine benn bu nekk daa jël am lef ka ko yoroon doon ca wax ak ñam dajeeloon ca seenug dégg fam toll bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nag yàlla wax ak moom ne ko lépp ci sa loxo lay jaar ba bis rek mu ne ko tey ji la lépp mat al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina loolu mooy l'islam kon yàlla moo xam lim ci namm ci nit ñi waaye nit ñi mën nañ cee seetlu seetlu ak i takk yu dëgër yoo xam ne du fecc ko ci ne bokk na ci li ko taxaw na ñëw mooy la ca jiitu def nit ñi nit nitee leen ak nite nag bu ñu ko tuddee tudd nañ ci am xel ak nitoo di ko yàlla nañu ci yàlla musal li lislaam andil nit ba mu war a doon ak nit nag mooy da ko ne del déglu alquran ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu fekkee ka ka tuxal andil la ko wér na fu mu ko tuxale loola dañ cay gis lu bari loo xam ne lislaam daf ca nosal jullit bi ak dundam la ko tàmbalee ci ba mu amagut ba ba muy am ba ba muy man ba ba mu fi bàyyi ko amul fenn fu muy taxaw ak moom ne ko xaw ma fii ne su fi def lislaam moom amul fu muy taxaw ko jullit ne ko fii xaw ma nañu fi def fenn fu ci nekk am na bunt bu mu jaar génn ca wala mu génn ca waaja ca xat-xat ba mu toll ñu gis na nag fan yii dafa siiw lool ay benn benn yoo xam ne dañuy génn xottu gerte wañ nekkoon ñëw ci penc bi ne lay na cëpp tàmbalee ñàkkalal solo nit ñi yoo xam ne bokkut ci sax ci mutaxayiraat yi waaye ci sawaabit yi la bokk yi nga xam ne kenn waru ko laal dañ ko fa war a bàyyi su fekkee xam nga ca dara nga génn la nga ca xamagu si néew leeral ko te yàlla tax soo ca xamul dara nga bàyyil ko fa xëy na du ñàkk ku fa mën a ñëw ku ca xam da bokk yi bokk na ci li lislaam nosal jullit bi ngir ay yilla yu bari mooy takk soxna ci ay sartam waaye rawatina takk ca lu ëpp kenn takk lu ëpp kenn takk lu ëpp kenn ñaar ñett ba ñeent lu ci nekk nag diine layal na lu tax ñu war koo def waaye bokk yi ku fas yéene taxaw ne moom lii moo ko neex kenn mënalu ko ca dara kenn jéemalu ko ca dara moo ko yàlla waaye nag bu mu jéem a gàllankoor koo xam ne daa bëggoon a def ñaar ñett ba ñeent ndax ñaar ñett ñeent dafa am yilla yu tax lislaam ne ku ko man na nga ko def ba ca jiitu mooy li tax nit teg soxna bokk na ci sange boppam aar boppam dugg ci am ñag boo xam ne ku ko fa séen te ka ko fay seen jigéen rek lay mën a doon jigéeni nit su ko fa séenee mu xam ne keekat mi ngi ci am ñag kenn du kaf jëm ci moom waaye moom it su séenee jigéen mu ne ci biir ñag ba mu ne ñag bi kat dañuy tare ko ko laal buxuma la la ne ci biir kon am na lu ko fa tax a nekk mu seete feneen ca nam ko war a seete muy benn kon day aar nit ki su xasee ba aar nit nag ba nit ki ne ci biir ñag bi bu nit ki jéem a génn ñag bi wala muy joxañ ko ne ci biir ñag ci biti ñag ba muy benn ñaareel ba it ci nos bi lislaam nos kenn sañu te indi nit jamono jur doom te jaarul ci sëy boobu ñuy wax waaye li tax lislaam na jaar ci ab sëy dañoo bëgg ñu xàmmente kenn ku nekk xam ñam bokkal ginnaaw dane bu kenn takk kii bu kenn takk kaa xurimat aleykum ummahatukum ba aaya ba àgg ñu ne du jigéen ñëpp lañuy takk lii tax ñu neex xàmmee nag su ne sant wa nga ne nangam mu ne loo bokk diw mu xam ne diw la mu xam ne war na koo takk wala waru koo takk waaye suñ bàyyee rek mel ni jur gi ku waay taseel rek jàpp ci loxoom day mujj nit mën naa dem ba séq ko koo xam ne sax waru koo séq ak boppam moo tax jaarale ko ci ab sëy lislaam joxañ ko loolu te am na illa ju leer nañ la ca dolli ko it mooy gëstukat yépp te xóotal seen ëlluwa ci diine gis nañ ne takk lu ëpp kenn am na njariñ lool ba ca jiitu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ku mat a am soxna te bëgg a am soxna te man koo yor na ko wuti te sabab lu ca ak njaboot su fekkee ci sama xeet la bokk ndax kat bu ëllëgee damay puukarewu ci yéen ci seen sama yeneen yi nawle ya su ñuy wane seen mbooloo ma ma wane sama mbooloo itam loolu it ku ne xam na ne bokk yi seen soxna mënu ko seen soxna mënu ku ca bëgg a bokk da nga weesu kenn te bu dul dara sax am na ci àdduna bi réew yoo xam ne ñaar ba ñetti réew yoo xam ne li leen tax a am kàddu ci àdduna bi mooy mbooloo mu bari ay gone yu ndaw ak i ay xale ak i ndaw ak ay waay loolu doo nga leen tax am baat ci adduna bi loolu nag ku ci bëgg àgg rawatina ngay ab jullit faw nga weesu kenn ay liggéeykat it ku ko soxla faw mbooloo bari mbooloo moomee nag bu ku ne nekk bu ku ne naa ci kenn lay yem te léeg-léeg kenn koo koy muy yem yàlla boole ko ci ñi nga xam ne duñ duñ jaboot yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau inathan wa yahaabu liman yashaau dukura aw yuzawijuhum dukuraanan wa inaasa wa yajcalu man yashaau aqima aqim bu fekkee bat bi di sut ku jaasir koo xam ne du am doom day am ku nekk ci kooku lay yem képp yàlla yam yàlla yamale ko ci kooku nag nu muy def ba mën a bokk ci ñu yokk xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faw mu weesu ko wuti keneen gëstukat yi gëstu nañ ne adduna bi jigéen ñi ñoo gën a bari góor ñi kon li muy tekki mooy góor ñi nar a am soxna ñooy nar a ëpp jigéen ñi ami borom kër su fekkee kenn ku ne day jël kenn képp yam ca ña ca des ku leen di yor loolu mooy lii tudd lamb te ak lamb lamb du dara lu dul lu bari ci jabi rek duutu am njëggam waroon a am te moo ne yàlla séddoon na leen ni mu sédd na góor ni mu sédd jigéen sédd na jigéen ni mu sédd góor gis nañ ne it ñoom nee nee nañ li tax góor war a takk lu ëpp kenn mooy góor moo gën a taxaw ci kanam yi gaañaate yépp góor daal lañu waajal ngir faat ko ku takk paaka ku nekk li ci ëpp takkaluñ ko jigéen góor gu leen toogale bëgg leen jaar takk tax ñu takk paaka ba waaye ku yor fetalit xanaa boog fetal jigéen taxul mu yor fetal ka góor kese moo tax ñu yor paaka moo tax ñu yor jeesi moo tax ñu yor fetal ginnaaw saa su nekk mën na dem te dellu si waat su ne moom ci kenn lay yem dem yem fa nag ñu xeet wi yokkoo la ko ci doon dimbale mooy mu bàyyi fa benn ñaar ñett ba ñeent kenn ku ci nekk am lu ne gàññ su boobaa bu fa jógee it mbooloo wutu ko fa xeet wi yokku gannaaw góor daa taxaw ci kanam ku yor paaka ku yor jeesi ku yor fetal bu dul yooyu yëpp it mi ngi jóge réew ak réew di tukki dem ak dikk di wuti ci wërsëg suñu borom bi kooku nag su ne ci kenn lay yem tey dem fu nekk tey gis lu ne ab juti war na koo moytu la ca dolli ko mooy lii faatu ci góor ñi moo gën a bari fuuf lii faatu ci jigéen ñi loolu it gëstukat yaa ko wax te loolu yow mën a xam bari na kër yoo xam ne da nga naan ana meer bi rek waaye paa ba dem na bu yàgg bu yàgg a yàgg sax da ngay dégg ñu bari naan ba fi waajuram du jóge booba xale bu ndaw la yàlla ko yóbbu nag yàlla ko doxale noonu rek waaye su boobaa it pexe ma ko ci lislaam sàkkal ba mu bañ a naax saay mooy mu amoon yeneeni soxna yu bokkut ak benn soxna moo ne it yàlla mi bind góor moo bind jigéen wutale leen tudd naa léegi jigéen joo xam ne yàlla bind ko mu war a am doom kooku ku ca yam ñoom na ñëpp fu ñu fi bàyyee ko ñu naax saay nañ du suñu am trace ci kaw suuf trace mooy jeex yi waaye am na yuy gaar jigéen yoo xam ne it ku ne ci benn lay yam xam naa dana nekk lu yàgg a yàgg ndax weer wu nekk faaw mu xaar dara bu yàlla dogalee mu bokk ci ñi am doom it su amee doom it dana ko muñal ab diir waaye ndax muñ googu ab diir par weer wala par saa bu muccee ñépp a ko man foofu lislaam jiw mu fi ba ne ko da ngay wuti kenn ñaar ba ku ku jàpp ba amul jot sa moroom man laa wettali loolu it ci xik xikam yu mag yi ci la bokk waaye it su fekkee kenn ku ne dana ci kenn lay yam ñu nangul ko ko moom ci boppam mu faatu bàyyi fa kam yoroon ñam fa bàyyi ñëpp di aw góor kenn ku nekk fekk mu yor kenn nag kam fi bàyyi nuñ koy def dañ ko fi bàyyi rek ba kañ ah la cay mën a xew jëruñu di ko leeral waaye xel àggale na ko kon boog lu ñu fi gën a bari kenn ku nekk nan moom ci kenn képp lay yam xam nañ ci am xel rek la mën a jur ndax nit moom nit rek la yàlla daf ko bind ci ak doyadi ak léeg-léeg mu fàtte bay fàtte sax boroomam ndax fàtte boroom bi mooy léeg-léeg mu tar fàtte rek dugg fu mu warta dugg te loolu nag lislaam sàkk na ci pexe bu baax a baax a baax a baax kon boog yàlla nu yàlla dimbali ba ñuy gën di dégg lislaam te yàlla di ñu dimbali it ba ni ko sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa waxee ne saa buy wax rek mu doon wax ji am njariñ ndax ñiy jàngale nu ñuy tase xibaar dañu naan tour de communication tue la communication saa su nekk nga génn wax rek ñu naan déglu leen ko déglu leen ko day dem ba yàgg mu taataar ba dugg foo xam ne duutu fa mën a génn ndax ba ñuy wanante aw weer ba yàgg koo xam dal nee nañ wéradik xel muy tukki da koy gatan gane léeg-léeg gan gi ñuy wax xel mu dem dañuy séentu weer bi rek mu ne ñii lu ñu taxaw ni ñu ne ko weer wi la ñuy séentu mu ne jàkk fi ñuy xool ba yàgg mu ne ma nga nee de laa waaw wax na dëgg nag weer waa nga nee de moom ñu wanante ko ba ñëpp gis ko ñu ne ay waay ndax ndax yàlla mu tane mu ne wenee na nga nële ñu ne ah ñun nag wenn lañ ci xam ndax dañuy jàpp bi mujj a wax wala ba mu njëkk a wax la ñuy jàpp te ñëpp teg ci bët su ko defee kon lislaam a ngi noonu luñ gis mu def ko rek am na lu tax mu def ko yiñ ci tudd nag moo gën a bari waaye benn ñaar ñett ñeent wàññiwul dara moo gën fuuf kenn kenn ka lu mu baax baax wolof sax lépp na ko nee na kenn moom ku ko yor moo ko taxaw ci pindub teen a yam ku toog ci pindub teen wan teen bi gannaaw te léeg-léeg xelam nekk ci wéeru su tolloo ci fan yooyu ci weer ñàkkagun ñàkkee léegi nga ko su tolloo ci yewi ko di xaarit la muy xaar faw nga néggandiku kooku jàpp fenn te su xëyee xëy faatu mu ñàkk rawati nag dem ba di ko bindante naan moom li mu fas yéene mooy du weesu benn foofu nag pas-pas mat na faa seet ba xam moom moo gën a xam yàlla kenn xel xalaatu ko ba xam moo gën a mat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu xel xalaatu ko ñii roy yonent bi ñépp ñiñ ci xam ñépp ñépp weesu nañ kenn ñëpp a weesu kenn kon yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën a weesu kenn ba teg ca ñaar ba ba ñuy àgg fa mën a yam te bokk yi ñuy bañ itam lu ñu dégg rek jàpp ko am na ñuy wax ñoo xam ne dañ naan la téere sàngam nee na léeg-léeg sax gaa yi tooñ benn borom téere na waaw ndax borom téere boobu bi nga koy wax yorutoon kenn rek te di ko neexal léeg-léeg ñu ne diw nee na ñu ndax diw nee na diw nañ xool ba xam marja la wala déet ku ñuy dellu ci moom ci diine la wala du ko xam-xamu diine nu mu toll su dul loola ay kaf lañ koy jàppe rek waaye am na ñoo xam ne seen kaf am na ñu koy jàppe dëgg am na fii ci dëkk bi ñu nekk koo xam ne dafa dalaloon daa woowoon daal ay bokkam di naan ak ñoom kafe ngoon kenn ku nekk mu kaf seereel la ko am kenn ci mbokkam yi koo xam ne dana muññ ndax bëggul kii di kaf ak moom mu ne ala inna ni ala inni wa in kasra suduli ah man lu daal di bind ay sadd ay bayit fi saas jox ko kookee ne woon muñ ñu ne ko lu samay kaf bari bari day du ma wax lu ma wërta wax lu samay kaf bari bari boo ko seetee rek muy dëgg day dëgg koo xam ne mënu solo koo wax jàkkaarloog yow mu di la naqari waaye kaf yépp dëgg lay doon moo tax wolof di wax ne wolof mën nay kaf nii mën naa mer waaye lum léebu rek dëgg lay doon léebu yaa ma gënal borom tubay ji wala yaa ma gënal woyo mbénte bëgg naa wax dara bëgg na la ko wax jaar ko ci doomi bàjjana wala doomi nijaayam moomale ko kooku te fekk yow la ci jubloo wax loolu ñu jàng wax xam nañ lu mu tudd su ko defee kon yàlla ñu yàlla dimbali rek ba waxi sëñ boobu lu nit di waxat rek yàlla na doon lu am njariñ yàlla na doon loo xam ne ku xool ci téere suñu borom bi fekk ko ca wala nga xool ko ci xadis yonent bi fekk ko ca am nañu seen jotaay loolu dong waru koo génn warut a génn qaala allahu taala qaala rasulullah buñ ko génnee rek tarafat nañ te gopp moom buñ ca dee takk ay càddaay ak di ko laxas yépp dañ cee wane ak njàmbaar rek waaye la muy sànni ci suuf taxut ab tool set yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te mosu seytaane nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin